te bu fekkee ni fii dañuy wax place Jaay Xaas demeen ngeen xool rue 10 ak fii nga xam ni si biir allée yi mais allée yëpp nii nit ñaa ngi fay Jaay Xaas mais fii bañ fi waxee dañu organiser wu de telle sorte que amul lenn lu nga xam ni créé nañ ko wala déborder na si tëli bi kon nag lii nga xam ne moom la def ay sénégal ce sont des sénégalais purs et durs ay jeunes yu fi nekk la jël seen alal munoon ko def ko feneen wala munoon dem sàcc mais dañ jël seen alal participer pour dëkk bi dox kon nag fii ñi nga xam ne ñoom ñoo fi def ils sont ce sont des entrepreneurs yu nga xam ni tey ñaata nit ñooy ñëw di dund si lii jaaykatu ndox yaa ngi nii di jaay ndox chaque jour ñii di jaay añ ñii di jaay reer ñii di jaay ay buum mais yëpp day apaiser dëkk bi kon nag comme que ki ay quelques jours mos des lu ñuy ñaan autorités yi mooy fii du ay ay trian ñoo fi nekk du ay bandi ce sont des sénégalais yu nga xam ne dañu diiñ koo si gis judd bu rafet la yore kon nag nañ ñu ñëw ñu respecté dañ leen di ñaan jour yi nga xam ne moo fi des nañ ñu bàyyi ñu yeggali sungu liggéey ba déwoon ñu xool quelles son les solutions yu ñu mun jël pour xool affaire foire. ok léegi nu ngeen nu ngeen nar a lu ñu nar def mooy suñu alal la ku ñu fi bëgg jëlee tamit da ngay am parce que lu tax suñu alal tey bu ñu paree ñu yóbbu ñu police parce que fay ñu suñu ay prêt kenn duñ fa fekk duñu ko réglé. kon nag lu ñuy ñaan mooy dañ leen di ñaan ngir yàlla ñu may ñu ñu yeggale opération ba pare mais mënuñu leen bàyyi ñu yóbbu suñu alal. ndax jokkoo ngeen ak seen i kilifa lu mel ne koo xam éleveurs yi xam ne am na ay kuréel ñu leen jiite fii Sénégal ndax jokkoo ngeen ak ñoom. no seen non parce que bu ngeen seetee système d' organisation bi organisation opération tabaski ay zone zone la zone bu nekk dafa am lu ñu organiser mais zone bi ñun ñoo organiser wu nii. comme que dañu ñun ñëpp dañu manqué woon si benn mbir mooy toog liggéey tranquillement problème yi nga xam ne tey dañu xalaatoon di nga ko def ñëpp dañu organiser pour leen def ko si discipline ak mais amul benn problème bu nga xam ne am na fii teg tabaski ñaata jour moo des mais maximum cinq ba sept jours kon nag ana lan lañ fi mën créer problème kon nag ñu ngi leen di ñaan de grace nañ ñu jàppale ngir yàlla ñu bàyyi ñu liggéey tranquillement mais waxoon nañ leen bu leen xam nga non xam nga wax boobu yëpp lan la woon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 ndax dañuy toog ni wéy peut-être dañuy dem ba peut-être fii la ñuy toog ba léegi solution amul dañ dem ba dernière minute bi ni maintenant dañuy dem faar te fekk ne amul benn mesure d'accompagnement bu siy ànd kon nag dañu jël au dépourvu comme que nag temps bi dafa gàttoon ñun tamit mënuñu woon am pexe pour wut ay solution idoine comme que noonu la nag moo tax ñu ñaan leen ñu leen fii nii ce sont des sénégalais du ay beneen nationalité luñ leen di ñaan mooy nañ si waxtaan ngir yàlla amul lenn luñ fi yàq surtout dañuy demander le président de la République Macky Sall